حمد وشكر لمن كل به سارح لهرد دون سقط عند سرسارح لا سنائي وردوان بلا سقط مصاد لي من بني ديمان انصارح لله كل لدى أبار مكرمة من أرسال نوفي أجم من سارح إن الذين إلى صرصار خد خسدوح سارة فارغة فارغة دار الأوسارة يلاح بالمصطفى سندي يلاح وبخليلك إبراهيم يلاح وبكلمك موسى صالح خدير وبشحيب وإسماعيل يلاح بسليمان النوح يونس اليسعي وزكريا يحيى هود يلاح هران يوسف إلياس وآدم داود في عيسى لوط يلاح ويوسف بشكل وخير ما من أنبياء ورسل لك يلاح وبالملائكة مريم شما سبتحم جبريل سما ميكائيل يا الله وساحب النفخ إسافل خابد ورد وين الخلايق عسرائيل يا الله وبصحابتي شما الأولياء معا والعاملين من الأخبار يا الله بصديقي وبالفراخ سما بسنوريني سما بي شقني الله بمالك المزايا nga xamante ni ñoo war a yor kaaraange dëkk bi nga xamante ni gar yëpp ñu ngi fi ñëw ak it wàllum restauration ñi nga xam ne ñu war xéwali war ko tisaar ci yenn section yi waaw naka ngeen préparé loolu waaw waajal nañ ko bu baax a baax a baax euh, ndax euh, lu ñu yàgg def la maanaam fii nga xam ne nga nekk euh, fi la waa restauration nekk Moustapha Diaw bu Bayla moo fi nekk ak Banna Fall ak Soxna Absa Niang ño zéré fi nga xamné ne moy wañ wi ñu nekk fekk mo wa section Touba ñu ñëw indi mbolo mu bari ci liggéey bi te at mu nekk ñu niko def mu ànd ak serigne damloum ak euh, Atou Ngom ak tierno sar ak mbolo mu bari mi ñu andal ñomit ñu andando ak gaay yoré yore li nga xamné mo nekk wal restauration bi fi ci magal gi bu dé ci côté hébergement itam ku ñu wax Cheikh Ngom mo fa nekk and ak Omar Diop Euh, ak euh, baaxe sey ñoom itam séré lépp li nga xamné mo jëm ci walu gan yi euh, ci côté installation Moustapha Diop mom moko jité and ci ak Aladji Ndiaye ak Cheikh Samb ñoom itam nek jambar lol ci li nga xamné mom moy liggéey bi ñu ngi ko commencé depuis le 7 le 7 ba légui ñong ci base bi yakarna défar nañ lépp lo xamné war nañ ko def ci walu matériel lépp lo xamné itam war na fi ñëw ci walu matériel itam andi nañ lépp sécurité bi ñoo ngi ci jiital ki nga xam ne moom mooy Basirou Diop euh, ak ñi nga xam ne moom la àndal ñoom itam euh, yaakaar naa loolu mooy li nga xam ne moom lañ def sous commission yi te fas yéene itam waajal li nga xam ne moom mooy siyaar bi nga xam ne coordination bi moom moo koy def euh, te sëñ Mbacke Diouf ak ki nga xam ne moom mooy ñoom Ablaye Diallo ñoom ñoo koy jiite ñoom ñu ngi fi ak ñoom Mout am ñu ak ñoom Ibra Kane ngir waajal lépp rek loo xam ne jëm na ci wàllu siyaar bi bu ko defee ñu ànd ak ñooñu nga xam ne ñoo ñoo jiite sécurité bi ak installation ngir def lépp mu jag comme ni nga xam noonu lañ ko daan defee ci at mu nekk.